للمصطفى jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet Tawfekh Production ñu ngi fii ci Daaru Xadim ci tegum xeer bi nga xamante ne moom la ñu amal tey jile ci njiitul euh, ki nga xamante bu sëriñ euh, Massamba Kandi Bousso di sëriñ euh, Fallou Bousso Cumbuleen yàlla na ngi ñëw sëriñ Fallou moom sëriñ Abdoul Khadir nga xamante ne moom mooy ilimaan ji nga moom la sëriñ Muntaxa dénk xeer bu jëm ci juma ah, moom la sëriñ bi yabal ngir mu war koo taxawee ci kanam tuuti incha allah rabbi dana ak si ndem Cumbuleen mi nga xamante ne moom moo di xalifa bu sëriñ Massamba Kandi Bousso taxawaay bi nga xamante ne am na ko ah, ci li nga xamante ne moom moo di dëkk bu sell bii di ah, daaru xadim gis ngeen daaru xadim biir Touba la nekk léegi mën nañ ne daaru xadim dëkk la boo xamante ne quartier la ci biir tubaa ndax xam ngeen ne dëkk bii tubaa Touba fekk si na ko ba wër ko ba nga xamante ne boo fi nekkee day mel ne ah, fi nga xamante ne moom moo di Touba foofu nga nekk kon bu mel ne daaru xadim di dëkk boo xamante ne kenn ku nekk xam na ne fi ñu toll nii li fi dund ci population bari na juma yell na mu am fi ba tax na ñi nga xamante ne ñoo njaboot gi fas yéene amal li nga xamante ne moom moo di tegum xeerum juma joo xamante ne incha allahu rabi lu wër daaru karim lu wër xadim ñëpp dinañ mën a ñëw ngir dina amal li nga xamante ne moom moo di lii ah, nga xamante ne moom moo di julli ajuma yi ak julli idi ah, di man amal fii nga xamante ne moom moo di daaru xadim ah, gis nañ Serigne Fallou Moussa Timbaleen andi nañ ko sees mu toog ngir taxawaay bi xam ngeen ne jëm la joo xamante ne yéene lay demee waaye xam ngeen ne kenn ne xam ne ne at yi mayu ko sax mu teewe jotaay yu mel nii ndax ne xam ne ne moom mi di Serigne Fallou Moussa mag la waaye tamit xeer gu mu li nga xamante ne moom moo di lii nga xamante moom moo di ouverture juma ji nga xamante moom moo di euh, juma ji ñi am fii ci daarul xadim euh, daarul xadim euh, ñu xam ne dëkk la boo xamante ne Serigne Fallou radiallahu anhu bi ko Serigne Touba joxee ndigal ngir mu sanc dëkk bii di Ndindi waaye joxoon Serigne Abdoul Khadir mu sos tundoo di waaye sos sëñ Moussa mu sos tundoo di sëñ Euh, sëñ Abdou Khadir sos dëkk bi nga xamante ne moom moo di Baxdaat boobu la joxoon Serigne Fallou Bisa Cumba leen ndigal mu sos dëkk bi nga xamante ne moom moo di Daarul Xadim nga xamante ne diggante ma jumaay Tuubaa Euh, mi ngi toll ci li nga xamante ne moom moo di euh, ñaari kilomètre euh, mbokk yi ñu ngi fii ci biir Daaru Xadim ci penc di ci nga xamante ne moom moo di ku ci mel ne Serigne Falloum mi nga xamante ne moom moo ko moo koy jiite incha allah rabbi ci kanam tuuti lay ñëw ngeen ànd ak seen site internet bi nga xamante ne moom moo di Tawfekh Production waaye tamit ngeen ànd ak nga xamante ne moom moo di Rafah TV ngeen nga ànd ak yéen xamante ne moom bi nga xamante ne moo di li nga xamante ne moom moo di tegum xeer bi nga xamante ne moom moo di tegum xeeru jumaa ji bii jumaay daaru xadim ciment bi taxaw na gis nañ kilifa yi wër ko kenn ku ci nekk bi nga xamante ne moom moo digle tabaxaayu ay mu ñaan yàlla bi nga xamante ne moo digle moo euh, juma ngir ñu amal moo di euh, yàlla fekk ba ñu koy ubbi ci teewaayu kilifa yëpp kenn bañ a manqué ndem soble yàlla suñu borom subhanahu wa taala taalibe yi ñu ngi ne moom moo di jataay bi kenn ku ci nekk ci ñoom taxaw taxawaay boo xamante ne day taxaw taxawaayu xare badar kenn ku ne di taxaw taxawaay boo xamante ne bëgg a a fës ci li nga xamante ne mooy liggéey bi te xam ne liggéey bi liggéey la boo xamante ne liggéey bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala la jëm ci tegum xeerum bi jumaay daaru daaru daaru xadim kon ñu xajal ñu ñu yoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi agsi nañ Serigne Fallou agsi moom Serigne moom Serigne moom Serigne Serigne Fallou la bàyyi 1913 ko euh, euh, dëkk bu sell bii di euh, dëkk bu sell bii di daarul xadim Serigne Fallou moom Serigne Abdoul Khadir agsi na ci oto bi euh, ngir di génn noonu ngir fas yéene amal li nga xamante moom moo di tegum xeer mi euh, ko Mbacke Balla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér euh, Serigne Fallou Bousso Cumbuleen mi koy teeru mi ngi koy teral ko ngir mbégte mi nga xamante ne am na ko ci teewaay bi nga xamante ne moom la am amal fii tey moom Serigne Serigne Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir kon moom mi nga mooy taxawee julli yi di julli it fële jumaay Touba moom nag moom la ñu nuyu noonu agsi mu agsi ngir fas yéene weer wi mi ngi noonu fas yéene ñëw teg ko ci teewaayu kilifa yëpp muy jumaay daaru xadim di ne ñu ngi koy amal fii ci biir Touba incha allah rabbi yi a amal li nga xamante ne moo di tegalu xeer ci biir daaru xadim sëñ Fallou aksi na mu mel ne kon mbooloo mi taxawaat nañ ngir fas yéene defaat kuréel bi nga xamante ne mooy amal lii di liggéey bi